prise en charge ba jafe na jafewul prise en charge bu jafee rek ci malade bi la parce que une fois que mu ñëw ñu dese ne que dafa am diabète bu ñu dikkee médecin yi dañ leen suivre surtout docteur Awa Marie Mbodj mi nga xam ne moom mooy nekk fii ci hôpital Ndamatou di leen suivre en consultation dinañ leen suivre en consultation def la nga xam ne war na di leen suivre en consultation di bi bind ay analyse ñu def ko di leen bind ay garab ñu mën ko jël ngir ci boppam mu xam ci bopp dana la xamal daal la xam ni war na ci yow. Euh, ñi ci bari daawoon nañu dem fii ba Dakar léegi ci lii xam mooy même boo demee Dakar ci boppam dañ naan la demal Touba yemal hôpital Ndaamaatu ñëpp a nga fa. kon nag si bopp ñun ci boppam gagné nañu combat bi nga xam ni moom la ñu mës a bëgg bëgg parlement diabétique toog fii et on dem nañu ba seetlu ci suñu bopp que ni ña daan dem sax dematuñu. xanaa ñenn ñi rëcc rek de mais ñu ci bari 80 pour cent yëpp ñu ngi toog nañu ci Touba parce que benn. alhamdulilah eh, eh, ñu ngi ciy dolli sant yàlla médecin bi ci boppam li ko war ci constatation ak ci prise en charge médicale mi ngi ci def ñun ni nga xam ne en tant qu'éducateur aussi ñu ngi def suñu wàll kon nag ñoom lañ daan fekki fee remarque nañu pratiquement am nañ ko fi dem amatul ñooy dem xëy na dañuy dem ci leneen. li nga xam ne diabétique bi am na ci euh, ñu bëgg ñu taxawul ñu ci xëy na sax ñun ñu ngi ci parce que au début ci boppam daw ñu woon génn mais seetlu nañu xëy na depuis le mois de mai. ba fan yi di passé chaque mois danañu génn wala chaque deux semaines te kooku buñ koo di def ñi dañu contacter directement le docteur Dieng que ñu ñu ngi koy nuyu mu contacter ñu pour que muñ mën a ñëw ñenn ñi seen bopp et que chaque fois bu ñu génnee am ay cas de hyperglycémie mooy su su ëpp dañ leen di orienter kon nag nekk na li nga xam ne moom la ko gagné nañ ko en tant qu'éducateur en tant qu'association. xam nga euh, bi mu bu avant que lii di am sonnoon nañu. parce que d'habitude nañ daan dem Dakar du ñu am fu ñu faju parce que Dakar dafa métti léegi nag seetlu ñu xel bu ñu daan dem ci téeméer boo jul ñaar fukk rek fay dem mais aussi ñoom bu ñu eggee ba egg ci Ndakaaru dañ leen wax ni xel yem leen Touba parce que Touba am na lépp docteur Awa moo ngi fi nga xam ne du am benn po ku dikk dana la gis en consultation dana la toppatoo analyse yoo war a dañ la ko defloo bu fekkee daf la war a ci yeneen mi spécialité comme ñu xool say bët ak say bëñ say yëpp moom moom dañ la ko defal ñun nag si boppam au niveau de Touba dañu bëgg aussi jouer suñu partition la mooy suñu partition mooy dañu bëgg kër diabétique yi nga xam ni diabétique yëpp ku ci ñoo jaar foofu parce que bu boobaa lu ci bari mën na dañ fay sax créer coopérative du diabétique nga xam ne ay lekk ay naana yëpp dañ ko wutal parce que diabétique bi bu fekkee ni xel yu ci bari xamu ko waaye boo ko wutalee fenn fi nga xam ne mën na ko fa da koy noppal ay boisson kii yooyu yëpp dam loolu daal nekka na daal ci suñu yitte bëgg nañu daal balay at mi di ñëwee balay déwén daal ñu am loolu